chers téléspectateurs c'est encore un plaisir mbégte la contenté di leen retrouver encore une fois sur les antennes de la 7TV dans votre émission avocat émission bi nga xam ne moom mooy traiter les questions juridiques mais aussi l'actualité de manière générale tey nag ñu bëgg ñëw ci ñaari points yu am am solo muy li nga xam ne mooy la transparence budgétaire mais aussi le budget inclusif boo xam ne vraiment le Sénégal am na énormément de ressources naturelles ak ressources vraiment il faudra ñu waxtaane bu baax a baax li nga xam ne moom mooy la transparence budgétaire mais aussi li nga xam ne mooy le budget inclusif vraiment pour boole li nga xam ne moom mooy la population ci li nga xam ne moom mooy budget bi ñu gis si bu baax a baax a baax seen bopp donc ñu si dalal ki nga xam ne moom mooy Malène ñaan nekk directeur IBP International Budget Partnership nga xam ne benn ONG la base ici au Sénégal di xeex li nga xam ne moom mooy le budget inclusif ci àdduna président ñu ngi lay nuyu c'est un maa ngi lay fay Amadou. Mm-hmm. allez euh, di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo leen di seetaan. Mhm. Ah, di lu tamit euh, liggéey gu am solo. yi ngeen di liggéey euh, ci yee Sénégalais yi ak xamal leen li nga xamante ne seen moomeel la. ndax bu ñu waxee budget. Mhm. Sénégalais yee ko moom ndax ci ñoom lay jóge te ci ñoom lay. dellu président tey ñu bëgg waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy le budget parce que tey jii vraiment contexte bi nga xam ne moom la ñu moom la nekk mais tey jii yàgg nañu wax li nga xam moom mooy transparence budgétaire yàgg mooy budget inclusif mais pourquoi actuellement plus que tey jii dañoo war a waxtaanee li ni mel. waaw damay am euh, damay sawar lool tontu la ci laaj googu. Mm-hmm. ndax Sénégal dafa toll foo xam ne dañu am changement de paradigme. Mm-hmm. bu ñu gisee at yi ñuy génn cool yi bëri woon na lool ci wàllum politique mais bu ñu gisee cool yi li ko lal yépp wàllum transparence la. Mm-hmm. Euh, jub jubal sellal euh, rafetal yorinu réew mi. loolu nag dafa am solo ndax balaa ñuy ñëw ci budget bi nga xamante ne mooy li ñuy waxtaanee. réew boo koy jàngat da ngay jàngat évolution mhm. euh, démocratie tolloon na foo xamante ne wàllum élection rek lañ doon waxtaanee. Mhm. Euh, lu jëm ci processus électoral lu jëm ci représentant des candidats lu jëm ci euh, ban candidat moo war a bokk ak ban candidat warul bokk. naam loolu am na solo. Mhm. waaye li nga xamante ni mu gën a am solo ci démocratie ndax dañ naan l'argent public est au cœur de l'état de droit et de la démocratie. maanaam li nga xamante ne moo sas. Euh, moo su mooy li nga xamante ne moo moo moo tax état jóg li nga xamante ne moo mooy mooy solos état mooy li nga xamante ne ñun soxla nañ ko en tant que citoyen mu mun ko doxal te loolu pour mu mun ko doxal dafa soxla ay koppar yoo xamante ne ñoo ko may mu doxal ko koppar yooyu nag li ci gën a bëri mu ngi bàyyee ko ci citoyen yi dëgg la muy wàllum l'impôt waaye am na loo xam ne tamit dañ koy àbb te bu ëllëgee impôt lañ koy fayee waaye l'impôt loolu itam loolu l'impôt loolu itam bu ko amee ba noppi dañuy xool saytu fan lañ ko war a dugal. Mhm. ndaw ñi euh, la question de l'agriculture. Euh, wàññi dund gi. loolu yëpp dafa di loo xam ni euh, citoyen da ci da ci da ci am place bu am solo bu mu ciy joué. Mhm. moo tax tey bu ñuy wax la question de la demande sociale. Mhm. demande sociale boobu li ci gën a bëri yaa ngi koy gis ci transparence lay nekk. ci wàññi dund gi lay nekk. ci réduction du coût de la vie ci emploi des jeunes lay nekk. ndax nit ñi dañuy yeewu ak xarala yu bees yi. Mm-hmm. xam nañ léegi li nga xamante ne mooy seen àq ak seen yelleef ci démocratie bi ñuy laaj nag état mu koy doxal. ñu laaj état mu koy ñuy laaj état mu koy mu koy doxal te état moo war a état moo war a doxal li ni li ni mel cest ñu dox ci li nga xam ne moom mooy transparence ñu dox ci li nga xam ne moom mooy inclusion de la de la population mais tey jii bu ñuy wax tey inclusion tey jii population ci li nga xam ne moom aspect budgétaire bi ci yan ci yan fànn lañ koy defee. waaw xam nga bu ñuy xool budget. Mm-hmm. dafa am lu ko lépp loo gis ci état rek yoon moo ko lal mhm. budget li ko lal mooy euh, un ensemble de dispositifs juridiques mhm. bu ñu xoolee ñun dañu bokk ci kuréel gu ñu naan UEMOA mhm. muy mbootaayu réew yi nga xamante ne ci Afrique sowu jant lañ nekk ñu naan leen euh, les Afriques de l'état de l'Ouest les états de l'Afrique de l'Ouest mu doon réew yoo xam ne dañu bokk li ñu naan politique monétaire dëgg la waaye aussi mu am lu jëm ci seen wàllu budget ni ñu koy doxalee ak ni ñu koy tërale li ci gën a bëri ci euh, loi yi nga xamante ne moo ko lal fa la jógee. Mhm. ñoom lañ naan code de transparence code de transparence nag moo ne yéen mi nga xamante ne dénk nañ leen alal ak kopparu réew mi. Mhm. yenn responsabilité yi boo leen ko amee da ngeen di def déclaration de patrimoine yow état mi nga xamante ne dénk nañ la budget war nañ xam budget boobu fan la toll ñaata la ñu koy publier ci ay site ñu naan ko l' information budgétaire. Mhm. chaque trimestre nga def rapport. publier ko sur les sites ñu naan ko les rapports d' exécution du budget. li ñuy def tey assemblée nationale ci loolu la bokk. Mhm. ñu ne nga présenter sa situation des dépenses et des recettes à moyen terme dans un rapport d' orientation budgétaire boo xamante ne. assemblée nationale bi nga xamante ne ñoo fi toogal citoyens yi. Mhm. ñoom ñoo koy examiner. ñoo koy saytu bu ñu ne la tamit bu ñu demee ba octobre jot rentrée jot. Mhm. da ngay jël budget bi nga jébbal ko assemblée nationale. Mhm. commission technique yi xool ko bu ñu ko xoolee ba noppi commission de finance xool ko itam. ñu yóbbu ko plénière voté ko. Sénégalais yi xam ni lii mooy li nga xamante ne état woote na ko. ci at bi ñu jëm euh, bu ma juumalee c'est environ cinq mille cinq cent milliards. ñu ne nag loolu nan lañ ko dox donc gis nga transparence boobu dafa am solo. Mm-hmm. boo doxalee nag ba noppi nga def sa rapport rapport boobu Cour des comptes xool ko assemblée nationale xool ko. mooy jur lañu naan loi de règlement. bi ngay dégg ci assemblée nationale. Mm-hmm. waaye rapport yi ngay dégg tamit Cour des comptes mooy l'activité de contrôle. Mm-hmm. Cour des comptes bu contrôlé day xool li nga xamante ne normal na li nga xamante ne normal bu fekkee ni am na loo xamante ne. Euh, c'est assimilable à du détournement de deniers publics. Mhm. mu yëkkati ko bu amee ay poursuites judiciaires ñu mhm. def ko réew bu ñu waxee transparence loolu la. Mhm. mooy état xaalis bi ñu koy jox li tax mu koy jël. fi mu koy jële na mu koy jëlee. na mu koy doxale état buy àbb sax assemblée nationale dafa koy autorisé. Mhm. donc loolu mooy la question de la transparence fexe ba ñëpp di jot ci information. c'est-à-dire foofu laay ñëwaat c'est-à-dire accès à l'information. ici au Sénégal surtout l'information budgétaire je pense que ni comme ni nga le budget qui est là qui est mm. publié mais la population amuñu vraiment culture boobu di dem vers l'information budget budgétaire tey jii nii c'est-à-dire kan moo war a jouer rôle boobu c'est-à-dire y a une responsabilité de la population ñu war a xam vraiment lan la seeni seeni seen ressource fu mu jaar mais aussi les autorités aussi ñu gën a sensibiliser aussi la population ci li nga xam mooy l'information et l'accès à l'information budgétaire. man damay sawar ci loolu nga wax ndax gis nga boo xoolee élection bu jotee. Mhm. li gën a bari li ñuy waxtaanee man dama naan li ñuy waxtaanee. Mhm. amulul njëriñ askan wi. boo demee ci yenn réew yi gën a développé yi. Mhm. élection bu jotee xam nga nit ñi li ñuy waxtaanee pouvoir d'achat impôt. impôt ndax seen xam-xam toll na foo xamante ne. Mhm. en terme de d'information publique ñoom dinañ xool nit ñoom li leen intéressé mooy man mi nga xamante ni menuisier la wala monteur la wala caméraman la sama impôt bu ñu ko yokkee wala ñu wàññi ko. ban impact lay impact lay am ci man du dëgg. wala dinañ xool bu ñu fekkee ni yokk nañ le coût de la vie. Mhm. wala bu fekkee ni wàññi nañ yenn aides man mi nga xam ne dama ci doon jot du ma ci jotati kon kooku sa sa conscience politique mhm. elle est intimement liée à la gestion de la chose publique fii nag dañu naan diw day bokk diw du bokk diw dafa rafet diw dafa ñaaw mhm. c'est une question également euh, d'éducation de citoyenneté mhm. euh, sur ces questions là de mentalité aussi de mentalité voilà euh, question laaj bi nga laaj dafa am solo mooy le gros problème c'est que on ne va pas souvent vers vers ndaxte bu ñu dee seet ci gën a bëri Sénégal wolof la ñuy làkk. l'information budgétaire d'abord elle disponible en français. Mhm. bi ci topp mooy euh, budget dafa ji loo xam ne dañ ko jàppee lu technique. mais nag ministère des finances ça fait des années. Mhm. ñuy def un travail remarquable euh, d'information budgétaire de développement de budget citoyen de mhm. simplification du budget. ba léegi sax ñu ngi. def un travail de prévision des risques budgétaires. mais la nomenclature ba tey dafa dafa compliqué waaw. c'est-à-dire boo nekkul expert c'est-à-dire dans le domaine en matière de finances publiques wala fiscalité pour nga comprendre aussi c'est tout à fait compliqué. waaw mën na métti loolu am loolu lu jar a wax la mën na métti te loolu nag mooy le rôle des organismes non gouvernementaux. Mm-hmm. de la société civile mais aussi des médias. Mhm. war nañ xool nan la ñuy waxtaanee ba ñi nga xamante ne xam nañ. Mhm. ak ñi nga xamante ne xamuñu mën toog jéem a wecconte ay. xalaat ci loolu. ñi nga xamante ni xam nañ tamit jéem a fexe ba xamal ñi nga xamante ne xamuñu te bëgg nañ xam. waaye wax leen ko ci anam yoo xamante ne yomb na tey budget c'est rien de compliqué état mooy xool ci activité éco économique am li ñu naan secteur primaire secteur secondaire secteur tertiaire. ni muy doxee prêt yi mu am maanaam xaalis bi nga xamante ne àbb na ko. li mu war a fay ci ay salaire li mu war a fay ci charge de fonctionnement li mu bëgg investir mu nattu loolu yëpp boo xool lan la euh, nan la toll. Mhm. du point de vue des dépenses. c'est dépenses oui. c'est des mhm. mu xool itam li nga xamante ne moom mën na ko xaar ci économie am en terme de recette. en terme de recette. bu xoolee loolu mu ne ah man de li ma nar a am ci recette. Mhm. lii ak lii ak lii laa ci bëgg def. waaye li ma bëgg def yëpp samay recette ñu ma ko kon dina am lu may dem àbb waaye loolu muy àbb tamit dafa am ay plafond état li muy àbb. par année ça ne pas dépasser 3 pour cent de son budget mooy li ñu naan le déficit budgétaire mhm. mu am li ñu naan la dette publique nag mooy stocku dette bi yëpp maanaam li mu àbb yëpp borom yëpp bu ko boolee warul dépasser 70 pour cent de son de son PIB bi mooy maanaam bu ñu nattee économie bi fu mu toll koom gi fu mu toll mhm. ñu ne Sénégal tey koomam lii lay jar donc gëm naa ne bu ñu toogee mhm. di waxtaan ak askan wi ci wàll woowu mën na am lu muy euh, mën ma maanaam mën na am jeexital mën nañ ci jàppale nit ñi ñu gën a ñu gën ñu gën a gën a gën a xam ñu jëm ñu gën a xam cest yaa ngi koy wax. te société civile da ci am rôle mais médias yi tamit dinañ ci am rôle. médias yi aussi dañ ci dañ ci am ci wàllum ci wàllum démocratie sànq yaa ngi koy wax transparence inclusion li nga xam ne moom mooy la moom mooy la population mais bu ñu xoolee Sénégal vraiment c'est vrai que def nañ lu bëri ci li nga xam ne mooy ci wàllum transparence mm-hmm. mais ba tey on dañuy gis ne ba tey donc ci wàllum corruption <coughs> ci wàllum mal gouvernance ba tey le Sénégal vraiment donc mi ngi bokk ci pays yi nga xam ne ñoom ñoo gën a par ces fléaux là. xam nga lu jëm ci vabilité lu jëm ci transparence mhm. euh, ci yorinu réew état da ci am rôle waaye citoyen dañ ci am rôle li njëkk am solo te am nañ ko Sénégal mooy le dispositif juridique te am nañ nag mhm. am nañ ko des comptes mhm. assemblée nationale am na role bi mu wara a jouer euh, fi ñu toll nag li ñu soxla mooy une volonté politique forte te fan yi ñu jógee am na yoo xamante ne gis nañ ko ci ci wàllum volonté politique de vouloir rendre compte de vouloir informer mm. de vouloir sanctionner mu am tamit une un appel à la responsabilité bu muy laaj te mm. ñi nga xamante ñoom lañ dénk euh, yorinu réew bi waaye ñoom lañ dénk tamit contrôle bi ñuy saytu di càmbar li nga xamante ne moom la état di doxal. te boo xoolee y avait aussi de la justice aussi. on oui boo xoolee balaa assises de justice yi sax. il y a eu les de la cour des comptes. Mm-hmm. bi ñu yeewoo publier rapport sur la gestion de la Covid. kenn xaaru ko woon et on a vu l'effet que ça a donné en termes d'éveil mm-hmm. nit ñi ne mais kon ñun biñ ñuy confiné tëj ñu suñu kër yi. <laughs> li fi doon xew ci réew mi euh, ñii doon liggéey liggéeyatuñu. Mm-hmm. nit ñi commencé ñàkk gars yi commencé sonn commencé am problème. Mm-hmm. ndeke jamono jooju am na ñoo xamante ne ñoom xalaat nañ def leneen ak xaalisu réew mi. ça éveille ça choque. loolu dafa am solo bu ñu xoolee les de la justice sa donne le sentiment que. tey Sénégal bëgg nañu ànd booloo d'accord ni ñii lañ war a doxalee sunu justice ndax mm-hmm. tamit la perception de citoyens ci justice bi mm-hmm. dafa demoon ba am mu demee woon mm-hmm. ak contexte bi ñu génnoon donc amoon na solo tamit nit ñi toog waxtaanaat mais volonté politique boobu mooy ma jàpp ni lu ma séq ak moom bu fekkee ni def na loo xamante ne waru ko def ci alal goo xamante ne man moom moo ko askan waaw doonte man maa la fal moom ma alal boobu askan bee ko moom askan wee ko moom boo ci defee naka su dul noonu li yoon wax mais ñu appliqué la ko. nañ ko nañ ko appliqué tey jii ñu ngi xaar li les audits parce que le gouvernement bi nga xam ne moom moo fi nekk le régime en ba mu fi ñëwee def na beaucoup d'audits def gis nañu les gis nañu les rapports mais on attend de voir la suite je pense que ne vraiment war nañu changer de paradigme cest bu ñu defee ay rapport ñu sanctionner sévèrement loolu la sénégalais aussi di xaar. gis nga changement de paradigme boobu dafa am Euh, am na lu bëri loo xam ne dañuy wax day mel ni lu bees la fi mais beesu fi. rapport rapport yàgg na am sax boo demee en ligne <laughs> rapport yi moom mm-hmm. yàgg nañ fay ne muy cour des comptes am na yoo xam ne ne sax ce ne sont pas de contrôle mm-hmm, mm-hmm. mais war nañ loo xamante ne au delà des actes délictuels am na actes yoo xamante ne wax dëgg yàlla boo gisee dangay xam ni lii ni ñu koy doxalee jaaduwul ndax loo xamante ne yaa ngi ciy investir depuis dix ans amoo ci benn résultat mhm. wala loo xam ne yaa ngi ciy def xaalis boobu ba léegi ñu ngi koy dégg amoo ci benn résultat loolu bu fekkee ni sax waxuñu ni sàcc am na ci wala détournement am na ci mhm. mais loolu xam nañ ni ni ñu koy doxalee kon demeewul noonu doxalin bi kon tey fi ñu war a toll mooy mhm. ñun citoyen yi nag am na ñaar yoo xamante ne moo ñu war comme yan bi jiitu mooy euh, comportement yooyu ñuy dingan yi nga xam ne dañ koy duut baaraam naan lii baaxul ñu fexe ba ñun ñu bañ ko def. ndax corruption bu amee corrupteur am na. Mhm. du dëgg. Mhm. Euh, nit bu jëlee lu mu moomul indi ko ci yow nga xam ni moomu ko nga jël ko di ko jëfandikoo ba pare wëlbatiku naan sàcc baaxul ak fen baaxul <laughs> du dëgg walla nga xool koo xam ni. Mhm. Euh, bëggul yëngu bëggul bouger bëggul activé wu mais ba pare bëgg di jëriñu xam nga loolu mënul nekk. loolu c'est aussi une question de mentalité. de question de mentalité beneen bi nag mooy. Mhm. Euh, ni ko euh, euh, premier ministre doon waxee kenn warul féliciter nit parce qu'il a bien fait son travail. ndax bu ñu la jëlee bàyyi Sénégalais yëpp. Mhm. tabb la mhm. teg la fenn. mais boo defee sa liggéey. ah mais alhamdulilah. waaw góore waaw góore on doit être beaucoup plus exigeant. avec nos lycéens waaw góore dafay yokk dafay yokk góor. aussi waaw góore nag dafay yokk góor ça c'est important. Mhm. donc nga féliciter nit ndax daf na li mu war def am na solo. Mhm. mais Sénégal tamit tolloon nañ foo xamante ne. buñ ko waaw mhm, mais bu nguur lañ war a bàyyi. buñu buñu waaw le le le concept nguur. moom lañ war a bàyyi. Euh, affaire bi dénkaane la. Mhm. da ngay def li nga war def bopp rek nga dem sa bopp. nga dem si yoon je pense que fi nga wax aussi fi nga daanele dafa am solo c'est-à-dire ci wàllum population parce que on parle on parle du budget mais budget bi dafa am répercussion bu baax a baax ci li xam ne moom la population on a parlé aussi de corruption. on a parlé aussi beaucoup de choses yooyu yëpp dafa am dafa am répercussion sur la sur la population alors que Sénégal bu ñu ko xoolee bu baax a baax métti ci bëri na trop trop trop trop tey jii mën nañu comprendre vraiment que tey war nañu xoolaat vraiment le budget. contrôler bu baax a baax a baax saytu bu baax a baax sanctionner sévèrement parce que yooyu dafay am répercussion sur la vie des Sénégalais te gis nañ coono yi nga xam Sénégalais ñu ko dund surtout la jeunesse. Euh, analyse bi nga def dafa am solo. Hmm. parce que Sénégal fa lañ toll dañu war a ñun di xoolaat li nga xamante ne mooy matuwaay yi nga xam ne état yor na ko. Hmm. Euh, di ko jumtukaay yi nga xam ne yor na ko di di di di ci di ci décider di ci doxalee politique réew mi ñu ciy bàyyi xel nag di ko analyser de ce point de boo xoolee tey assemblée nationale dinañu waxtaanee le rapport d' orientation budgétaire mhm. bi nga xamante ne danañu wax Sénégal lii la yaakaar ni war na ko mën am ci ay koppar diggante deux mille vingt cinq deux mille vingt six deux mille vingt sept mhm. wax ñu itam li nga xamante ne war nañ ko mën am ci ay dépenses diggante deux mille vingt cinq deux mille vingt six deux mille vingt sept boo xoolee loolu man li ma ciy njëkk def ci jàngat mooy mhm. on a des prévisions plus réalistes boo xoolee li ñu naan croissance maanaam yokkute wu économie bi. économie bi gis nañ ni prévision yi ñu jox ñu ne année bi euh, ñu ne euh, ñu ngi ñu ngi woon ci trois virgule cinq pour cent en deux mille euh, vingt trois. deux mille vingt trois naka nekk ci ay quatre pour cent maanaam daal boo xoolee fi léegi deux mille vingt sept. la croissance économique la croissance économique dans des proportions yoo xam ni. Mhm. xel mën na koo nangu. Mhm. waaye état dafa am ay contraintes. contraintes yi mooy li nga xamante ne daanaka da ko. c'est c'est de da ciy engagé wu ba noppi. ndax état li muy fay ay fonctionnaire am masse salariale am. dafa bëri ñu koy liggéeyal bëri na. y a le train de vie de l'état aussi mais loolu c'est déjà. loolu c'est déjà euh, mënu ci dara. état dafa leb. Mhm. am ay bor war ko fay kooku mënu ci dara da ko war a def. Euh, bu weesoo loolu nag mu am le fonctionnement de l' ak administration am ak yooyu. bu noppee nag mu war a investir. investissement mooy li nga xamante ni moo mën yokk euh, koom bi. Mm-hmm. bu ñu gisee prévision yi état wax ci gàttal nee nañ dañu bëgg yokk dépense investissement pour booster l' économie. pour léconomie ñu ngi. Euh, am yaakaar ni le secteur agricole bu ñu ko boosté. Mhm. ni mu xëccee woon croissance bi moom ak lu mel ni pêche mel ni élevage. élevage mën na am njëriñ. le secteur primaire. le secteur primaire exactement. Mhm. secteur secondaire xawoon na am ay jafe-jafe. Mhm. ndax boo xoolee l'importation par exemple euh, euh, des bien venant de l'étranger. avec le renchir le renchérissement du coût de l'importation la crise ukrainienne ak yooyu. impact mu amoon ci ay secteurs comme le bâtiment ak yooyu xam nañ ko nga jël secteur boo xamante ne mooy ñu ne comme le secteur tertiaire. avec le BRT bi ñu lancé euh, TER bi xalaat nañ ñi il doit avoir plus d' échange plus de transport donc am nañ ci yaakaar. Mhm. waaye ñu ne ñu itam ah l' emploi des jeunes c' est extrêmement important il faut ñu investir si mhm. mais aussi ñu dégager ay marge budgétaire mooy xaalis bi nga xamante ne ñu ngi ko doon yàq ci yorin boo xamante ne sellul wala jubul. Mhm. buñ ko récupérer. dugalaat ko fi ñu ko war a dugalaat dana am loo xamante ne war na ko mën dugal dugal ci économie. sur la bonne gouvernance li mujj nag mooy nga jël la question du pétrole. Mm-hmm. am nañ première extraction au pétrole fan yi ak mm-hmm. Woodside. Mm-hmm. GTA nee nañ léegi mu sotti gëm nañ ni loolu bu ñu ko boolee gérer les finances publiques de manière saine. bàyyi yàq bi investir fi ñu war investir. daf la nga xam ne nag mënul ñàkk mooy respecter suñuy contraintes. état ci at yu néew dana am koppar muy dugalaat. bu dugalaatee koppar yooyu dina ko man investiraat fi nga xamante ne dana yokk koom li loolu mooy euh, l'esprit bi nga xamante ne il sous-tend la planification budgétaire ci at yii ci at yii di ñëw. Mhm. loolu la ñu loolu la ñu bëgg mais tey jii je pense comme ni nga ko waxee problème yi bëri na ici au Sénégal je pense que problème yi bëri na tey jii priorité yi aussi aussi bëri na mais je pense que ni du ci wax kese la lay la lay doon tey jii nii bu ñu doon vraiment dem ci priorité yi dem ci les actes vraiment pour soulager un peu la population pour soulager li nga xam ne moom mooy moom mooy la jeunesse ci yenn. acte la ñuy dem ay acte fort vraiment pour régler li xam ne mooy problème parce que à chaque fois on nous entend parler de ça mais la plupart du temps c'est des slogans actuellement on attend des actes forts de la part du gouvernement pour les jeunes mais aussi pour les femmes ak aussi la population tey ci fan la taxaw ci aspect yi ni mel. xam ubbi tey jàng tey ci jàng rek la am. Mhm. loolu ci jàng rek la am. <laughs> école rek la a loolu école am donc amul loo xamante ne Euh, dañuy mën day mën ne maanaam ñu wax ak ñoom ñu dégg ni euh, fii léeg deux ou trois ans ci la ñuy mën def lii c'est-à-dire que parce que les questions sont structurelles mm-hmm. xam nga lu yàqu wala loo xam ne defaruñ ko mm-hmm. ci ay at ce n'est pas un un un jour xam nga koy rek priorité nag ci benn coup baguette ci benn coup baguette mais am na mm-hmm. <coughs> décision décision yoo xamante ne boo ko jëlee mën nañ am yaakaar ci li ngay def bu ñu xoolee fan yi ñu génn réduction des denrées de première nécessité euh, bu ñu xoolee lu jëm ci Euh, donc la réduction du coût de la de la vie. Mm-hmm. bu ñu xoolee loo xam ne kenn ko gis budget bi li ñu ci annoncé c'est la réduction du train de vie. de, de l'État mm-hmm. bu ñu xoolee tamit loo xamante ne euh, mel na ni ni ñuy organiser la distribution des intrants agricoles jéem a fexe mu bañ yem ci intermédiaires yi. Mm-hmm. bañ nekk. deal bañ nekk business mu nekk loo xam ni ñu ko soxla ñoo ciy ñoo ciy jot. mu nekk le service public. mu nekk le service public pur et dur. Mm-hmm. bu ñu xoolee euh, waajal nawet bi nga xamante ne ONAS mu ngi koy def ak ministère de l'eau et de l'assainissement mu jëm ci fexe rek ba mënd mi euh, mënta ñàkk moom. ci fi ñu toll nii moo mënta ñàkk. Mhm. ndax même les pays développés. dañuy am euh, dañuy changement climatique am na lu mu ciy joué mais seen organisation du Sénégal euh, am na lu mu ciy joué. Mhm. bu ñu xoolee mesures ñu ci teg mën nañ am yaakaar léegi nag fi nga xamante ne euh, fa la ñuy xaaree autorités yi mooy la question de l' des jeunes ñoom bi ñu ñëwee nag matul trois mois. Mhm. man bu may analyser mbir damay jéem a xool ni ma koy defee du point de vue de la science. en tant que politique publique. Mm-hmm. Euh, ci ñetti weer am na loo xam ne mënoo ko ci def. c'est impossible. parce que ñii budget bi ñuy doxal. Mm-hmm. dañ ko fee fekk mu am charge yu ñu fi fekk. Mm-hmm. am dépense yu ñu fi fekk. am document euh, de planification économique ñu fekk muy PSE gëm naa ni fi ñu jëm nii le nouveau gouvernement war nañ defar seen gouvernement de plein de planification y la déclaration de politique général war nañ wax nit ci fi ñu jëm débat politicien nag dina am waaye loolu moom politiciens yi la concerné mhm. mais ñun citoyens yi mhm. euh, suñu laaj gëm naa ni compliqué wul li ñu bëgg compliqué wul li ñuy bëgg mooy xaalis bi nga xamante ne jox nañ ko état mhm. mu teg ko ci yoon ñu wàññi dund gi le coût de la vie dund gi agriculture ñu mën leen dooleel mu nekk un secteur boo xamante ne ndaw ñi daañ ci liggéey agriculture pêche élevage mi nga xamante ne c'est des facteurs yoo xamante ne mën na embaucher en forte euh, capacité de main d'œuvre mm-hmm. bu ñu ko booleeg lu mel ni euh, aujourd'hui la question du pétrole et du gaz mm-hmm. ñu développé ci ay chaînes de valeur ñu développé ay chaînes de valeur président je pense que ni temps bi ñu li si des li si des bëreetul mais je pense que falaay falaay terminé yaa ngi wax état bi ba tey mënuñu ko vraiment mënuñu leen évaluer dinañ leen bàyyi ci li nga xam ne mooy état de grâce bi xool leen xool fu ñu jëm mais y a aussi de l'autre côté la population la souffrance des populations mënul xaar tamit aussi ñoom dans leur tête ñu ñu xam li ni non man gëm naa ni moom réew moom ku koy laaj moom état de grâce moom amul. waaw état de grâce moom amul. Mhm. yaa laaj ñu jox la. Mhm. mais euh, kon bu ñu la dénkee rek war nga góorlu jéem a répondre à cette demande sociale là te cette demande sociale là elle est précise. Mhm. c' est l' emploi des jeunes c' est la, la réduction du coût de la vie c' est l' agriculture c' la bonne gestion des ressources publiques. mais li may wax rek mooy ñetti fan. pour ñu évaluer ci liggéeyu nit dafay xaw a ñetti weer pour ñu évaluer ci liggéeyu nit day xaw a métti mm-hmm. mais ñun les jeunes ñun les citoyens sénégalais mm-hmm. ñun euh, euh, la population sénégalaise notre demande elle est là mm-hmm. état li ko war mooy mu répondre ci ñun li ñu war mooy état ñu exigeant ak état mu répondre ci ñun li nga xamante ne moom lañ soxla mais aussi suñuy jikko ak suñuy doxalin maanaam na woon état ni que ñun li ñuy woote ñoom ñoo leen ci. ñoo leen ci kon on donne rendez-vous combien de temps par exemple pour pouvoir vraiment évaluer exactement le gouvernement qui est la fin budgétaire. à xool lu muy joxe. Mhm. mais entre temps ñoom lañ liggéey. Mhm. entre temps ñun mi nga xamante ne ay citoyens lañ ak ay journalistes lañ. Mhm. nañ jéem a fexe ba di leen topp. di leen won li ñu bëgg. di leen won ni ñu leen di saytu waaye tamit bu ñu defee lu baax ñu def nañ lu ci li nga xam ne mooy ci lañ jëm extrêmement ñun ñoo mën yee askan wi. Mm-hmm. ñoo mën wan état ni ñun li ñu intéressé mooy li ñor askan wi. Mm-hmm. du wàllum politique du wàllum parparloo ñun li ñu ñor rek. mooy citoyen yi ak seen i soxla. ñu gis seen ñu gis ci seen bopp ñu ngi lay remercier bu baax a baax président jox la kàddu gi bu fekkee da nga am looy. wax ah, ak ñu ma lay fay di rafetlu waat bu baax liggéey bi ngeen liggéey. Mm-hmm. et puis gëm ni lii c'est des initiatives ndaw ñi parce que tey démographiquement ñoom ñoo fi gën a bëri. ñoom bu ñu xamee li ñu bëgg te gëm naa ni ñu ci gën a bëri xam nañ ko. Mhm. bu ñu xamee leen war ñu ci gën a bëri xam nañ ko am taxawaay goo xamante ne day wan état ni ñun du parparloo moo ñu tax a jóg li ñu tax a jóg mooy euh, njëriñu askan wi gëm naa ni euh, avec euh, la volonté politique qu'on voit en face. mën na nekk loo xamante ni dina jural Sénégal lu baax. dina jural Sénégal lu baax merci beaucoup président tey moom la ñu nekkaloon Malène ñaan nekk nga xam ne mooy directeur IBP International Budget Partnership ONG fii ci Sénégal donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax. jëloon ko waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom mooy le budget la transparence budgétaire l'inclusion de la population sur le budget maanaam budget participatif dans un contexte boo xam ne vraiment les Sénégalais a ne moom mooy seen i problème nous remercions aussi la ñu réalisation bi Amadou Ndakebe Papis Dem Khady Sarr moo nekk ci montage bi nous vous remercions merci beaucoup